mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ñoo ngi nuyu mbokki taalibe yëpp say jiital nuyoo bi nga xam ne ni moo fi nekk sëñ Touba tey ci kaw suuf muy sëñ Muntaxa Mbakke Bachir ak uh, rakam yi mbokk sëñ Touba yëpp ak uh, seex yëpp mbokki taalibe yi yëpp mbokki jullit yëpp di sant ak gërëm suñu mbokki daayira Muxaddamatul Xidma ji nga xam ne ni ñoo woote woon tey bis yoo xam ne dañ ko faral daan ko amal at yi yëpp ñu génn xam ne nii ñaari at yi ñu weesu sax daanaka amaluñ ko woon ndax xew xew jamono tolluwaay jamono ren jii nag ñuy sant suñu borom bu baax di sant Sëñ Muntaxa bu baax a baax a baax a baax ci melukaanu jamono bii nga xam ne nii moom la mel ba yaakaar lañu lool ba lii ñu ñeme ci dellusiwaat ndax gëm nañ ne jullit li mu am ci li gën a foor moo dégg ñaan te ñaanam gi ñun xam nañ fan lañu fan la ñu jëlee ak f mu ñu andi jii. bu loolu weesoo ñu ngi sant bu baax ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ñoon wuy si ci liggéey bi ndax Moukhaddamatoul Khidma am na yéene taxawu ñëpp ñoo xam ne ni ñu ngi yëngatu ci biir jumaa ji tàmbalee ca ko ca jàng kaamil muy ñaar fukk ak juróom xam sëñ Tuubaa moo fi bàyyi woon ñu njabootu sëñ Tuubaa te daana wooy na buñ ko buñ koy laaj say ñooñ mu ne waa daare kaamil jooja ba ci ñi nga xam ne nii ñoom ñooy saytu barab ba ci wàllu setal ko ak sàmm ko ci wàllu sécurité képp ci mbooloo yooyu ku ci ne rek am na sa wàll bu jógee fu ci biir jumaa ji ñëw tey ji fekk si consultation bi ñoom lañ dajale woon ci ay garab ak spécialistes yi nga xam ne ñoom lañ ko àndaloon te nga te ñu toog nii wër ma muy médecin yi nga xam ne nii ñoo jógee ci barab bi fasanti ko ñu ci ëpp ci ñoom it am na ñoo xam ne ci biir dëkk bi la ñuy liggéey ñeen ñi nekk ci dans le public lu mel ni hôpital Matlaboul Fawzeyni lu mel ni hôpital Ndamatou mel ni district sanitaire lu mel ni centre de yi nga xam ne moo ñu war ñeen ñi ci privé bi lu mel ni clinique Mamour Sène ak ci clinique bi nga xam ne moom lañ ko def mu clinique Serigne Abdou ah, am na ñeneen ñoo xam ne tamit dañoo jóge ci yeneen gox ñëw lu mel ni ay ñoom docteur euh, Diène nga xam ne ni pharmacien la moom dafay ñëw en tant que membre Touba assistance médicale ci ndigalu jëwriñam docteur Sare mi nga xam ne ni moom moo jiite euh, district sanitaire bu Daaru Manaan euh, ci gàttal daal ñu ngi sant ñi nga xam ne nii teewoon nañ ci bis bi te ñaan yàlla coono bu fi nit sonn ngir suñu borom mi nga xam ne nii umpalewut yàlla na la ko fay Serigne Touba mi nga xam ne nit ñoom ñene ca jumaa ja moom la ñu liggéeyal te ñun ñii ñu xem même seen liggéey boobu ba ne seen liggéey ja dañu bëgg taasu te yoon wi lañ koy jaare yàlla nañu Serigne Touba def pay boppam te mu doon édition yoo xam ne yàlla dañu yàlla nañ ko yàgg ànd te at mu jot di gën a dàq at ma ja topp euh, ñu ngi sant bu baax it waa daayira mu xadimatul xidma tey jiital ci sant gi seen jëwriñ waaye ñun suñu bunt ci daayira bi sëñ Abdou Lahat Bousso mii la ndax commission sociale moom moo ko yor lu ëpp ci jëflante yi nga xam ne ñu ngi koy jëflante lu jiitu màggal ga ba ci gàmmu gi ñu jëm lu wàllu ci lu jëm ci wàllu faj ak saytu barab ba ci wàllu ña fay dugg si dugg fa ci génn ci am salaam ku fa am ay yenn ayib joo xam ne ni sa wàllu yaram la lu ñu war toppatoo barab ba nga xam ne ñoom defar na ko mu infirmier ba ba ñu mën leen ca taxaw suñu kamte lay kattan bon ñu ngi leen di wax ba tey loolu mu ngay woy di sant bu baax ci taxawaay yi yu jiitu woon ak yi nga xam ne ci yooyu lañ jëm xam naa ci bu ko defee dañoo bëggoon a jébal kaddu gi euh, docteur Sare nga xam ne nii day wax ci turu Touba Science Médicale bokk ci yenn kuréel yi nga xam ne nii dañuy jàppale ci liggéey bi saa suñ ko wootee waxaale également ci turu euh, district sanitaire bi ndax euh, moom moo nekk euh, njiitul centre de santé bu Daaru Marnaan te loolu su ko waxee dina ëmbaale ñeneen ñi nga xam ne ni ñoo jóge ci yenn centre de santé yëpp bon boog ñuy jëbal kàddu gi docteur Sare bu ko defee mu tàbbal ci ay kàddoom bisimilah. mbokki julli yëpp di siyaar mbokk taalib yëpp di ñaan a Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd di ko ñaanal Cheikh di Moustapha di ko ñaanal julli yëpp ak taalib yëpp suñu boroom saxal fépp jàmm di sant bu baax a baax sunu jëwriñ sëñ Abdoulahad Faye euh, jiite clinique sëñ Abdoulahad euh, ndax liggéey bi buñ ci jokkoo rek ci buntam lañ ko jaaree moom nag daa bokk ci magu daara ji ñuy tuddee membre fondateur kon ñoom seen njëlbéenu Touba Centre médical la nekk ci daara ji te ka ndeem alxuraan dana moom bu ngeen di jaar ci néeg na ngeen ko jaaree ci bunt ba te mooy buntu lii kon fun accès rek war nañ ko sant liggéey bi ànd ci diggante tubaa Centre médical ak daayira Muxaddamatul Xidma mu doon euh, liggéey bu yaatu yéene yaatu lool mu mel ne it jubluwaay yi doon benn te muy liggéeyal ku tedd ki kon dañuy sant bu baax rek ñu ñaan suñu borom defal ñu tawfiix defal ñu ci ndam lu kawe kawe ndax li ñuy xaar bari na ci dëkk bi di ñaan suñu borom subhaanahu wa dimbali ñun ko ànd te am ci ndam lu kawe kawe kawe di waxit ci turu district sanitaire bu Touba euh, docteur Ndeye Maguette Diop jiite ko moom it taxawaay bi moom bu ma koy wax duma ko wax en tant que médecin chef centre santé Darou Manane waaye en tant que taalibe bokk ci dëkk bi doom doomu dëkk bi laa koy waxee ndax taxawaay bi dafa rafet lool te it loolu waa daayira Muxaddamatul Xidma ak ñi séq liggéey bi mën nañ ci seede ndax boobu ba léegi lu ñu yëkkati rek district bi da koy ànd ak ñun donte man la fi yabal ci turu district bi yëpp waaye it man en tant que doomu dëkk bi liggéeyal Sëñ Tuubaa ñor ma buñ yëkkatee defal ku tedd ki man war naa yëkkate ay kàddu sant jagleel leen ko te it ci turu bi ñun ñoo leen war a sant ndax it euh, santé population Touba seen loxo la nekk kon lépp loo xamante ne nii district bi daf ko fee def rek devoiram la def da ko war mu def ko ndegam lu ko war la def nag dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin rek di ñaan suñu borom defuñu tëfee saa su ne bu ngeen ko yëkkatee rek euh, district bi yëpp mën koo ànd ak yéen kon ñu ngi santaat bu baax a baax euh, médecins yi nga xam ne daje nañ fi yëpp kenn ku nekk bàyyi yitteem ñëw waaye ñu xam ne liggéey bi moom liggéey bu mat liggéey la ndax wàllum faj la te faj nag newoon na Cheikh Saliou Mbacké newoon na ni lu ne mënees na ko cee amee lu ne mënees na ko cee ñàkkee kon ñooñ ci leen di sant bu baax a baax a baax ci seen taxawaay mooy bàyyi yi ngeen bàyyi seen yitte ñëpp nga xam ne dañoo baaxoo ngeen toog fa ngeen toog malade ñëw fekk leen fa tey ngeen déplacé wu ñëw ba fii ngir seet leen kon ñu ngi leen ci sant bu baax a baax soññ gi ñu leen ciy soññ nag mooy gën a taxawu malade ci barab yi ñu leen di fekk ndax barki démb am na kilifa gu ma ci doon waxal tey it wàllum faj dafa nekk loo xamante ne nii dafa san waaw euh, li ñu doon soññe rek mooy gën a bàyyi xel dëkk bi ak ñi fi yewoo te xam ne lépp njabootu ku tedd ki rek lañ te li ma bëggoon wax rek mooy ne accessibilité aux soins boobu ñuy wax ñun ñi nekk kër docteur jote na des naa jote dëgg-dëgg ci ñun ndax misaal bi ma koy waxee saasu ne bu ma ciy soññee mooy ku mel ne man daanaka néew na ñu dugg hôpital biir réew mi laay wax Sénégal te xawma fa kenn te moo ne sa soxna bu tawatee mbaa sa njaboot tawat mbaa ñun sax suñu jëmm ñu tawat jafe-jafe yu rëy lañuy am ngir faju ginnaaw jàppandal li ñu am yëpp kon xalaat leen sénégalais bi toog këram rek yëg dara jug dem hôpital xamu fa kenn kon lan la war a daj kon kooku lépp luñ ko mën a taxawu rek warees na koo mën a taxawu tey bañ di def xëy malaat suba ba ngoon tegoo sa esthéto rek am ñoo xam daanaka buñ solo blouse moom jàpp nañ ñi nekkatuñ ay nit far te médecine nag moom humanisme la moo ci jiitu kon humanisme boobu moom ngalawaay nañ koy jiital ci lépp lu ñuy def buñ ko defee rek daañ ci am àdduna waaye dañ ci am la ëpp solo mooy ku ci am yàlla rek ñàkkatoo dara kon ñoo ngi tubaab bu baax ci kàddu gi di santaan ñëpp jërë ngeen jëf arrahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina wa mawlana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu uh, kilifa yu tedd yi ñi ngi leen di nuyu di sunu mbokki docteur yi ci turu daairatu muqaddamatul di leen nuyu itam ci turu cheikh mouhamadul muntaqa ñaan sunu borom mu yàggal ko fi lool te may ko wér di leen jottali rek rek ay kàddu yi cantam ak ay kàddu yi ngërëmam daa fekk na jamono yii dafa nekk ci ak fatu waaye xam ngeen ne suñu masaana daje nii ba noppi dañ daan àndandoo dem ba ci moom waaye ba tey itam teewul bi mu li muy fatu fatu ci suba gi yabal na fa Serigne Cheikh moom Serigne Abdou Latif mu ñëw ba agsi fa yaakaar naa ñu bari ci yéen dugg na fekk leen ci bureau yi ngeen doon liggéeyee euh, daf ko wax ne ko bala moo tàmbali liggéey bi te mooy daayira ya muy recevoir na ñëw ba gis leen jottali leen ay cantam jottali leen ay ngërëmam kon ñu ngi leen di nuyu ci turam leen nuyu itam ci tur daayiratu muxaddamatul xidma ak ay kilifaam yi ko jiite yëpp di ko jaare nekk ci seen bunt ci daayiratu muxaddamatul xidma muy sëriñ Abdul Ahad mii toog nga xam ne moo jiite commission sociale bu daayira muxaddamatul xidma euh, cant yi nag du lu bees ndax lii bañ ko dalee amal ak léegi yaakaar naa mi ngi bëgg a yàgg defe naa lu néew ne mat na juróomi at muy bi ko tàmbalee sax yaatal waaye bañ ko tàmbalee amal moom yàgg na bi ko tàmbalee yaatal nii rek war naa mat juróomi at boobu ba léegi nag li gis mooy waxtu wu ne yéen a ngi koy gën a eh, yéen a ngi ciy gën a sawar yéen a ngi koy gën a yaatal yéen a ngi gën a yokk liggéey bi qualité ndax gis nañ ne dox na ba léegi ay spécialistes yu bari danañu ci teew teewaay bi sax am na solo waaye yéene ji ñu àndal ak pas-pas bi ñu àndal ngir ñëw ci liggéey bi loola mooy li ëpp solo te gis nañ ne yéene ji am na rëy na lool kawe na lool pas-pas biit it rëy na lool kawe na lool te jëf nag nu mu mën di toll rek la ca boroom fas yéene ko ca loola lay am. yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon ne innama al amalu binniyaati wa innama li kulli mriin ma nawa jëf yépp mu ngi aju ci yéene kenn ku nekk lu mu yéene rek loola lay am yéene ju sell jii ngeen am nag ci jagleel ci seen waxtu jagleel ci seen xam-xam jagleel ci seen man-man ñoo xam ne seenum xëy gënul yàlla seenum ngont gënul yàlla fañ koy xëyee di néegub yàlla fañ koy gonte itam di néegub yàlla ngeen fas yéene ñooñee ngeen taxawu leen ci seen wàllu wér-gu-yaram loola lu am solo la. lu rëy rëy la lii docteur Sare doon wax léegi day nekk sànn wenn xeer jam ñaari picc loolu lañuy tuddee lare ci wolof yaakaar naa ku fi ku fi jaar ci ndaw danaan lasper xam nga lan mooy lare lii nag lare lañ ci def mooy euh, danga ci am tiyaaba waaye tiyaaba ji day am li ñuy tuddee bonis ndax fi nga ko defee ak ñi nga ko defal da nga ko defal da nga ko defal ñu néew doole loola rek tiyaabale ju rëy rëy rëy waaye nga defal ko ñoo xam ne itam ñooñ yàlla lañ waxin la ñëpp ay jaam yàlla lañ ñëpp ñooñ yàlla lañ waaye ñii buñ nee ñooñ yàlla lañ war nañ koo mën a xam ndax nit ñëpp ñooñ wér-gu-yaram lañ waaye suñ ne ñooñ wér-gu-yaram xel yëpp ci yéen docteur yi lay dem foofu mën nañ cee dégg ne kon ñi xëyal yàlla ak gontal yàlla mooy ñooñ yàlla ci kaw suuf waaye ñooñu nag bañ joxee yàlla seen boppit dafa am fuñ ko jaar dégg nañ léegi euh, sëriñ Abdullahi Zare mi mu wax ne su alxuraan dafa wax ne wa atul buyuta min abwabiha booy dugg ci bunt ci kër jaaral ci bunt ba waaye bul bët bul yéeg bët mën naa xotti mbubu mën naa xottiw yaram yéeg it mën naa andi faxaj mën naa andi damm waaye boo jaaree ci bunt ba bunt bi ubbi ko tànk nga dugg jàmm rek ngay am yéen nag jaar ngeen ko ci bunt ba ndax euh, jàpp ne baax na am na solo lool waaye mu wóor la ne baax na moo ko ëpp solo lii nag wóor na ñëpp ne baax na ndax ñiñ koy defal ñu baax lañ ñoo xam ne ci lu baax rek lañ lañ xam fiñ koy defee fu baax la foo xam ne yaakaar jullit ñëpp la waaye bënis bonus bi ci am mooy jumaa ji sëñ bi dafa waxoon ne ku ci feeñ feeñ ba faw ku ci nëbbutit dootul feeñ euh, muy foo xam ne itam sëriñ bi dafa ñaanaloon képp ku ci jëf wala képp ku dimbale ku ciy jëf wali jamii euh, euh, a jamii man aanahum ala binaiha allati bi fadlika antala wali jamii man aanahum joojee jëf jii ngeen di dimbalee ña fay xëy ak gont di fa taxawalal yàlla waxtoom yi di fa jàngal Serigne Touba kaamilam bii loolu ci ndimbal loolu lay dugg kon na seen xel dal bu baax a baax ci ne jëf jii ngeen jëf teg ngeen ko ci loxoy Serigne Touba te Serigne Touba nangu na ko te loolu rek mooy li am solo nit nag kum mën a doon li docteur Sare wax léegi rek mooy li am solo lépp mépp métier moo xam ne am nga ko rek ca nga mën a liggéeyal yàlla. lépp lu mu mën a doon rek mën nga liggéey liggéeyal yàlla jëmmi faj ci boppam nag dafa nekk liggéeyub yàlla moom jëmmi faj ci boppam dafa nekk liggéeyal yàlla waaye nag ci kaw nga yéene ko ci loo ko man-man loo ci nangoo sonn loo ci mën a def boo koy def te yéene ci jaamu yàlla jaamu yàlla googee nga cee am tiyaabay jaamu yàlla jooje nga cee am boo koy def te fësoo ci dara nag ku fësul dara bu feccee du fecc dara boo koy def itam te jàpp ne da lu ñu war a amee xaalis rek lay doon boo ci amee xaalis baax na waaye boo ko ci amul pertement lay doon kon li am solo mooy fas ci ak jaamu yàlla bu boobaa loo ca am ci leneen lu lu ci am koom koom ma dana barkeel te du du yàq dara ci tiyaaba jënk yi ci am ëllëg ci kanamu sa borom te jaamu yàlla bi nga xam ne dafa sonn ñu war koo dimbale te yàlla tax dimbale ko jar na lu ne ndax li mu wax léegi rek jaamu yàlla bi bu ne ci jaami yàlla yi lay mën a jaamoo yàlla jaamu yàlla ci jaam yàlla yi waaye jaamu yàlla bu ne itam ci moroomam jaamam lay dimbandikoo ci la ndimbalul yàlla li jëm ci moom di jaare ci moom yàlla mooy dimbalee waaye ndimbal li ci jaamam ci jaamam la koy jaarale jëmee ko ci ab jaamam kenn ku nekk nag ci ñun war naa fexe ba mm, ndimbal loolu suñu borom di dimbale ab jaam muy jaar ci yow léeg-léeg ndax ci jaar gi muy jaare ci yow ci la sa tono maanaam sa bénéfice di yokkoo adduna ak alaxira yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon ne ki gën ci nit ñi mooy ki ci gën a mën a jariñ nit ñi ki ci ëppal njariñ nit ñi moo ëpp moo gën ci nit ñi xayrun naasi anfa'uhum linnaasi yàlla sunu borom sax dafa wax ne képp ku amal njariñ nit ñi du jóg ci adduna misaal mi leer na loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam kañ la génnoon adduna junni at ak nangam waaye ba fii mu ne mi ngi ci suñu biir ñu di ko waxtaane di ko fàttaliku di ko def lu ne jariñ li mu amal mi def yi moo tax Sëriñ Tuubaa mii 1927 lañ ko gëj gis ci àdduna waaye ba tey jii bi mu wootee barki démb bu wooteem bi ñëpp xam nañ ne mi ngi ci suñu biir ba léegi loola njariñ lim mu ëmbal nit moo tax te képp ku baax ku mu mën a doon ak fu mu mën a foo fu mu mën a doon nga di ko dégg tey mu doon ba mu la wanee ginnaaw léegi doon ay siècle doon na dundandoog ñen mbooloo mu dul jeex ci réew ma ñoo xam ne kenn déggatu leen kon wa amma ma yanfa'u naasa fa yamkutu fil ardi ñiy jariñ nit ñi moom waxtu wu nekk dañuy sax ci kaw soof adduna nag li ci am solo mooy euh, waxtu wu la fi yàlla indee nga jaar diir bi nga fi jaar mu gudd mu gàtt boo fi jógee nañ xam ne jaaroon nga fi boo fi jógee nañ xam ne jaaroon nga fi bu la yàlla mayee nag xam-xam tànn la ci si biir ay nawle nga seq nga xam ne kenn ku nekk ci nit ñi gone ndaw nga ci réew mi lu ëpp junniy gone junni gone yooyu màgg nañ am na ci lu mat ñetti téeméer yoo xam ne amuñu benn qualification dogal bu yàlla am na ci euh, ñoo xam euh, téeméer yoo xam ne ñi ngi doon wut qualification am nañ ca tuuti àggut am na ca ñetti téeméer yoo xam ne am nañ qualification àgg na waaye mënuñu koo jariñoo am na ca temeer bu ko mën a jariñoo muy muy junni léegi junni boobu nag yow mi yàlla boole ci téeméer bi nga xam ne am nga qualification sa qualification mat na nga di ko jariñoo war ngaa bàyyi xel ne yàlla am na lom la jox yàlla nag waxtu bu la joxee lu la ëpp yow daf laa séddale loo li la ëpp nag te nga gën caa mën a séddale te séddale nga gën a mën a am jariñ mooy xam-xam xam-xam bi nga xam ne suñu borom def na ko ci yow ndax yaag say naw la yu bari yooyu na jógandoo woon di wutee ndoo xam-xam yow am nga xam-xam ba tey ñi ngi lay wooyee docteur nga paas nga romb lu bari duggandoog ñu bari ñuy segg muy rot ñuy segg muy rot ñuy segg muy ba yow nga bokk ca ña àgg ba xam boo xamee xam-xam boobee am na lu la ci yàlla sant mooy ña xamul nga taxaw nga taxawu leen nga taxawu leen ca li yàlla xamal ci fànn xam-xam boobee ku génn su ngeen demee ba xam loolu wëlbatikuwaat di jàppalewaat nit ñi ak di bàyyi xel ne lii leen yàlla jox ci xam-xam di ngeen cee a jariñ nit ñi da cee war a jariñ waaye da ngeen cee war a jariñe ba tax ngeen tànn ci seen waxtu donte yéen a ngi ci liggéeyu nit ñi ndax euh, dañu wax ne état amul état mooy mbooloo mépp mooy nit ñi rek mooy nit ñëpp ñun ñëpp ñooy état bu ñu àndee loolu moo tudd état dañuy jël nag kenn ku nekk ci sa sañ-sañ dénk kenn wàññi daal ci sa sa sañ-sañ dénk ko nit sañ-sañ yooyu mu dajale ko nag te lay ëppee ñëpp sañ-sañ bu ñëpp sañ-sañ moom it sañ-sañ yooyu ñu ko dénk da cee wàññiwaat di ko joxewaat ñooñu mu koy joxewaat nag mooy kilifa yi nga xam ne noonu ni tabaxaat yi tegaloo ba egsi ci ñi ñi ñi ñi nga xam ne ñi ngi leen di eh, ñi ngi yéen ñii nga xam ne yéen a nekk ci barab yi nga xam ne nit ñi dañu leen di soxla te mënuñu leen di ñàkk te waxtu wu ne ñu ngi ñëw ci yen bu boobaa nag lay doon seenu la gën a la gën a kawe ci seenu jaamu yàlla du julli du woor waaye mooy taxawu nit ñi ci li leen yàlla dénk ci wàllu xam-xam kon taxawu googu nag defe naa moo indi bésub tey bii Euh, loo ñu du deesu ko xeeb mukk àlakuliaani deesu ko xeeb deesu ko xeeb des koy naw waaye nag deesu leen ko nawal ba tax ngeen di ko gis ndax la am solo mooy yàlla gis ko waaye du gisum nit ñi te am na nu ñu leen koy nawale mën naa dem sax ba yàq ko ndax da koy gis waaye liñ leen def li ñuy def mooy dañu leen ci gën a soññ gën leen ci encouragé gën leen a dénk ngeen gën a góorgóorlu ci euh, loolu te xam ne ci la leen yàlla liggéeyloo te ngërëmul yàlla ci lii ngeen ko mën a amee kay fanaanee julli di fanaanee woor yéen ngeen yéen doo faj nit ñi bu guddee ngeen fanaanee nelaw lam lam fanaanee jaamu yàlla moom ci guddi gi yéen dangeen ko am ci ci ci ci ci ci faj bi ngeen di faj ci nelaw ya ngeen di nelaw ngir coono bi ngeen ci faj gi ngeen di faj jaamu yàlla yi te bu ngeen xëyee lu mu jaamu yàlla ngeen nekk ca fee di liggéey da ngeen amaat jaamu yàlla gu tol noonu loolu nag promotion la boo xam ne kenn du ko am di ko sàggane kon nag na ngeen ci gën a góor góorgóorlu bu baax loolu dama koy wax dolli ko ci ndénkaan yi nga xam ne docteur Sare mi ngi ko doon dénkaane léegi waaye nag na ngeen xam ne sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen bu baax ndax gis nañ ne waxtu wu ñu leen soxlaa rek teew ngeen ci sunu kan wet te barab bi ñu nekk dafa nekk barab bu doy waar ndax barab la boo xam ne day yaakaar yi jullit ñu bari ñu bari di fi jublu si muy nekk dajewukaayu mbooloo ci xew-xew yëpp te waxtu wu ne mbooloo fu ñu daje rek ay wéré di dana fee ay jafe-jafe yaram dana fa feeñ waaye fu fi mbooloo di dajee muy màggal muy yeneen màggal yi xew ci dëkk bi muy gàmm muy événement yëpp fu ñu leen soxlaa yéen a ngi suñu wet lu dul loolu sax yéen ñi ñëpp waxtu wu ñu amee koo xamante ne bii am nañ ci moom ak jaaxle ba yebal ko ci kenn ci yéen taxawaay ba ngeen cee taxaw booba taxawaay booba gis nañ ko bu baax a a baax a baax te taxawaay boobu bépp nag euh, yéen ngi koy def ak yéene ju rafet ju sell di ko def itam ak xol bu yaatu ak ubbiku gu mat sëkk te loolu wax dëgg yàlla yéeni ko coobare wu di ko def te yàlla rek tax kon loolu nag war nañ leen ci nañ leen ci cant amee nañ leen ci ngërëm ñi ngi ñaan suñu borom mi nga xam ne dara taw ko yàlla na nangu jëf ji te bu ko nangoo yàlla na ko ful dencal leen ko ba fa mu amee njariñ mu jox leen ko ci barke Serigne Touba yàlla nañ ci daje ngërëmul Serigne Touba te yàgg fee daje yàgg koo jëf ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ngeen delloo ñu fa ndax euh, jadaayub euh, mbusoobe bu ci soññee lu jëm ci defaruwaat soññee jëm ci xam li la andite bàyyi la fi amee ña ko fekk war nañ ci sant seen borom bu baax a baax te xam ne jataay boobu mooy jataay bañ xamee woon seen i maam taxawaay bi it ngeen am mooy taxawaay bañ xamee woon seen i maam leen warit si dëkk bi seen kamte lay kàtta yéen nga ca ñu leen di ñaanal ngeen daje ci ngërëmul sëriñ bi Euh, soxna yit fàttewuñu leen gis nañ seen taxawaay c'est-à-dire kuy lim lim rek da ngay faral di juum waaye ba ñu xëyee ba fi ñu toll nii euh, kenn mënu leen ci liggéey bi ñu leen di ñaanal yàlla yéen ñi fi andi ay yitte ñenn ñi ay ay borom kër lañ bëgg ñenn ñi njaboot ñenn ñi euh, ay contrat ñeen ñi xaalis ñenn ñi thèse ñenn ñi nangam ku ci nekk daal sa soxla yaa ko xam jataay bi nag jataayu fas la te man moom am naa ci firnde man lu bari lu ma bëgg rek fii laa koy xaare di ko ci fase nañ ca fase woon nag at yi jiitu lañ ci fasewaat rek ñun daal li ñu bëgg mooy ngërëm sëñ Tuuba ngërëm sëñ Tuuba mooy lépp fi ñun yàlla ñu laal suñu borom boole ñun ñëpp ñu amandoo ko suñ ko amee li ñu bëgg lépp dinañ ko am nga xam ne dañuy jàng seenum njàng àggagul ñu ngi leen di ñaanal yàlla ngeen àggale te muurloo ko te jariñ ci jaami yàlla yi kéem ni ko sëriñ bi waxee ndax ku xamit te mënoo jariñ say say say say moromi jaam sa xam-xam ba amul njariñ ndax boo ci amee fii dara fee mën nga faa bañ am dara te lu am fii te amoo fële dara di nga ko rëccoon ndax fee fee rek mooy dëgg asalaamaaleykum wa rahmatullah